dañu sonn ci jaay doole bi xam ne mu ngi mu ngi fii ci réew mi rawatina ak Petite bi fii nag Petite bi fii fii la lépp ullee ñaay moom fii moom respecté wuñu kenn. Atépa li tax mu bëgg a ñëw jël suuf si mooy sab ko sab ko moom la ci amal wax moom la ci amal affaire moo ko jaay te ko amul droit pour jaay suufu sab ko liy liggéeyam nit ñi xam nañ ko nit ñi defuñu. sab ko liy liggéeyam mooy nettoyer tali yi nettoyer peggu géej gi dindi salte yi salte lañ ko liggéeyloo tonn ay mbalit yóbbu tuuri régler li mu war a liggéey bu fekkoon ne li mu war a liggéey loolu la liggéeyoon kon ñun du ñu am benn problème. fii gis nga bâtiment yële nga gis sànq benn tubaab bu naan Michel Franchini moom la ko SAPCO njëkk a jaay parce que moom ba mu poussé ñu pousse. man tool bi moo yàq sama dem géej man ci bato yi laa doon dem tool bi moo tax ma sànni ko fële kon ñoom war nañu xam ne ñun duñu daw te duñu boucher mètre même suñu doon dekk ay kadaaf duñu duñu daw jamais nañu bàyyi tooñ bàyyi néewal doole dafa doy sëkk sëkk sëkk sëkk te fii suñu bakkan yi fii dañ ko fi teg ba pare te loolu yàgg na